assemblée générale itaïri n'est que département bu le 13 février 2022 l'année ñu c'est en ci ancienne mairie bu Sokone muy ci salle des fêtes bu la waralon bi ndaje nag tog, toog gis ne ñoom ben, nekkuñu benn te nag dafa jot ñu bolo nek ben, ndax nak, li liggéey na bile département waye considération bi dafa des bu bëree bëri li ci njëkk créer emploi di former aindao, ndaw ba ñooñu tey ni yore ay kër xeex lépp loo xam ne bokk na si ndóol waaye tam bokk na si ñàkku xëy ak banditisme bi yile artisan nag ñu ne dafa jot nag ñu taxawal benn mbootaay bu boole ñoom ñëpp ndax nag bu nekkee ne si wàllu taxi si côté commune yi dañ si participer bu baax a baax waaye nag fa ñuy décider duñ leen woo te boole leen si dara ba tax na nag ñoom nag ñu ne dañuy ànd nekk benn ndax ñu mun a xeex lu melees nii réunion bi nag yàggoon na lool si falu président mu amoon xëccoo diggante ki nga xam ne moom moo nekk monsieur Samba Diop si commune bu Passy ak monsieur Abdou loo bokk ci commune bu sookoon ba ñu njëkkee dem ngir waxtaan déggoo seen biir déggoo amul sax ñu dellu si ki nga xam ne moom mooy El Baba Soxna ak ñeneen woowaat leen ngir ñu déggoo jox kenn ki keneen ki jël beneen poste waaye loola yëpp amul ñuy négocier lu tolloog fukki simili si nag la ki nga xam ne moom moo nekk Abdoulo ña mu àndal woo ko ne ko bàyyi ko mu jiitu nga xoolaat beneen poste si nag la Abdoulo dégg ndigal ña mu àndal doylu leen bàyyi ki nga xam ne nag moom moo nekk Samba Diop nekk le président ña daje woon bëri na lool si ni commune bu Djilor Diossong Passy Foundiougne Sokone Karang commune yu bëri dajee ci bile assemblée générale ba ñu paree ci bureau bi te kay diir yu néew danañ def benn tournée départementale pour dem xooli seen yeneen naataango yi nga xam ne bokkuñu ci bile assemblée général ci lañ ñëwee nag ci ñi nga xam ne ñetteewoon sa boobule saal ñu déglu ñenn ci ñoom yenn kàddu yi ñu yëkkati. tënk commune de Fatick adjoint Amady Guèye dëkk ci commune de Karankos président Samba Ndong Djilor commune de Djilor le secrétaire général Ousmane Dore commune de Sokone adjoint Tidiane Sangor commune de Foundiougne trésorier Aliou Sakho Nioro Alassane Tall adjoint Bamba Diaté commune de Dioson commissaire au compte Badiane Diop Karang commune de Sokol. Adjoint, Lamine sar Nyojok, commune de Nyodjo. Président à l'organisation. Le président, le président, organisation. Président à commune de Sokol. Souleymane Diaté, commune de Dioson. Les deux places dañ ko réserver comme commune de Touba Bouta Saloum Diané Niassène Babou Dado Diagane Diagane Barka Mbam Soum et Bassoul ak Tamba Kër Tamba Gueye ñooñu ñoo des ñu bokk ci organisation. coordinateur départemental Mouhamed Lamine Thiam commune de Koko adjoint Serigne Mbaye Diagne commune loolu lañ ci xam ne loolu lañ jël ñu dajee fi di jéem mu jëm kanam euh, ku xam li nekk ci tey département de commune

pare rek tënk ko ne am nañ ay kay rek am nañ association départementale nit ñi dépassé nañ loolu léegi ni ñu ko fi installé fii ñi nga xam ne dañ leen yaakaar jiital leen toog déglu leen xaar leen dañ leen di surveiller de ba xam li ñu leen dégg yan effort lañ ci def ak naka lañ koy doxale donc adduna bi nag comme ñëpp léegi dañu xere je pense que ñun ñëpp ñaan yàlla yàlla may ñu ci ndam mbébé mm-hmm. euh, bi nga xamante ne nii am nañ ko ci Euh, bureau bi nga xam ne ni tabb nañ ko ñu ngi koy félicité di ko ñaanal yàlla mu woyofal yenn bi parce que ñun amuñu problème boobu ñun tey di di di di di lancer affaire ci président yëpp association yi parce que bokk ci bureau bi ak ñàkk ci bokk benn la pour man benn la euh, Mass mooy président bi man président association la man duma président association man membre la Mass yéene bu am si li nga xam ne moom la ñu sumb man naa ko am lépp lu ma xam lu baax naa bu ma ko gisee comme ni ñu ko waxee loo xamante ni nii dama ko ci war a mën a conseil wala dama ko ci war a mën a guider naa ko def su ma gisee opportunité yoo xam ne bu ma ko demee mujj mën nañu amal njariñ aussi dinaa ko jaarale si moom mu jaarale ko war a jaar ñun ñëpp mu nekk suñu njariñ je pense que moo nekk affaire bi ñëpp ñu nekk benn ñu boole xol yi parce que tamit li ñu boole nii li ñu ci bëgg a dem bu fekkee ne aussi nag booloo bi moom amul dafay métti loolu pour ñu avancer. waaw booloo yi mooy nag kenn ku lépp loo loo xamante ne nii opportunité la pour département yi bu defee ay yëngu mun ko décroché nga jaarale ko ñu ko war a jaarale wax ko ñu ko war a wax mu xamante ne loolu la loolu que bu nekkoon da nga bëgg a développé avant ñuy installé bureau bi sax dafay am lu muy lëndal si xelu nit mais nañ bu baax def nañ ay jéego toog nañ ak préfet conseil départemental toog nañ chargé du marché mu wax ñu lu bari que ne yéen ñun amuñu droit dimbale benn association directement ak droit bu ñu am mooy département bi ngeen organisé wu def kuréel ñun li ñuy wax warloo ak département bi mun ko def foofu rek lañ ko mën bu ma fa jaar ci keneen keneen comme yàlla defal nañu loolu tey mu am ñu jiite ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla may leen ci ndax may ñun ñëpp ndax vraiment di di rafetlu di encourager ah di gën a kii rek bureau nag monté ko dafay yomb mais des fois aussi ku mel ni Babacar Soxna dina jël poste boo xam ne sax dina ko dese maîtriser. voilà comme ñu ni nen la euh, je pense que Ousmane après bu liiraatee poste yi bi nga xam ne xam nañ ko par poste ñu ñu ñu décortiquer ko képp koo xam ne da nga ca bokk nga xam ne ah man na kon lii moomu ci doon xaar xamoon naa ci lii mais nekk def na lii wala def na lii wala def beneen bi mooy président euh, lu ma lay soññ mooy. la ma sa attan amaana bu jiitoon lii sax dana demee neneen ndax ñii ñëpp ñëw fii tey suñu amee information yi man kon ñun am na suñ kuréel ñu mel ci association nag yëngatuwul bougewul dërëm yàquwu si dafa am lu ma ma sàmm junj daa am koo ko wax dañoo toog la def dara te actuellement nga dafa am ci luñ nekk mais nag bu sottee nga xam lu tax ñu nekk ci suñ dal bi ak suñ toog ñu bëri jaaxal na leen waaw ku xamul nag moo tax wax leneen mais ñun ñu ne ci biir di liggéey xam nañ ci luñ nekk bref loolu lu ma doon jàllale la rek Samba maa ngi lay félicité ndax lu tax ma koy félicité man ak moom dañoo nekkoon Dakar di def formation ak suma benn jigéen ñi ñuy wax Yacine Badiane ñu yàgg wax ci lii di dox ba ma ñëwee ma commencé ko fii si dox fexe ñu taxawal département chambre de bi ñu bugg doomu téer téer yi jiite loolu yàlla dogaloon départemental bi bañ koy dox ñu baa ko soxla ñu leen ko bëggoon a teg kon ñun téer yi am na benn ligne bi ñu naroon ko taxawal pour mun liggéey jëm si kaw yàlla dogalul loolu Amath bi mu ko jiitalee Samb de bi yaa dafa bu feebar suñu père Doudou Fall moo ko mottali moo si nekk di si di si góorgóorlu ñu ko si encouragé bu baax ñu wane ne sonn si tam ndax gis nañ taxawaayam si affaire ok lu tax nag tey lii am Samb maa moom duñ ay xarit rek ay doomu ndey lañ ndax ko bokk ak néeg ñu mot ay semaine ay weer ngeen bokk ko benn néeg benn lal kooku bokk nekkatu leen ay xarit te bés bu yàlla baat wala weer bu nekk dinañ déggante lam nekk dinaa ko xam lu ma nekk dina ko xam su ma xew xewlee day ñëw muy neex ba neex muy naqar ak yaasin ba jaar damay bëgg muy jot message yooyu parce que da ko jëflante ak moom rastamasal keroog bu ñu def information fii euh, tëddeel moom yaasin déplacé na mu yor doon bi ndaw Sorew dafa def déplacé wu Fatick ñëw pour soutenir ma ci formation bi nekk loo xam ne kooku bu la jógu boolewul si boppam mu mun a doo mun di demee nii moom avant li ñu am na sax luñ waxtaan xëy na moom am na mbooloo mu ko yëpp ne ko lii lañ bëgg si ngorom warul mun a reculer man sama mbooloo ñëwoon ba mu reculer man dama nekk nit koo xam ne lu ma dama soxla dama gëm ne dama ko war a jot xalaatuma si leneen xeexal fal gargalal defal lu lu ma soxla loolu laa am te it du si wéet non moom xam na ne du si wéet ndax yàgg nañ di jëflante te mbébét bii nii yaakaar naa ba ngeen koy waxtaane yéen moom moo solution bi mbébét bi mu jógee avant muy yegg moo tax ma ne am nañ suñ jaar parce que bëri na li nga xam ne tëggoon nañ ko waxtaanee woon nañ ko ba yeneen ak yeneen ak yeneen ba si moom sax am na lu mu décidé woon ma ne am na lu mu programme bi lu jëm ci ay centre individuel mu ngi ko doon dox dëkkam maa ngi koy dox sama dëkk kon ñooñu am nañ beneen ambition bu dul di féewaloo ko xamul la mu la taxaw wax lu ko ne mais maa ngi xamal ko waxuma ko nag lu mu toog mais am na fuñ jaar nit su waxee ci man wala ku jógee Sokone dem Fass wax balaa ngaa yegg Sokone moom mu woo ma informé te loolu man am naa ay preuve en yu leer naa ñoo xam ne def na ko ak sama jigéen boobu di yaakaar. ñu si des nag ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di la wan sas la sas bu ci nekk mooy sama ñaw bi dafay damay mel ni baax lu sas bu ci nekk mooy sama contrat bi bëgg mu taal yow moo ma nekk sa bopp nekkatoo suñu comme suñu nga nag suñu xasatee bu soxla la ay sama téléphone dafa réer fii la jaaroon nag lii moomu kii loolu dama yaakaar ne bokkul ci njiit warul doxalee noonu yooyu nga xam ne nit ñi dañ lay soxla daar daar daar daar daar léegi léegi parce que tey mën nañ wax ne bokk nga ci autorité yi nga xam ne war nañ mën a yor nañ ci lenge yi war a doxal réew kon yow sax à tout moment dañ la war di jot ba deux ba deux heures du matin sax ku la soxla war na la mën a jot parce que soxla bu ma yenu moo doy nii kon su ko bàyyi xel ci loolu nga xam ne askan bu topp sa gannaaw te kenn du si cuune nga xam ne askan bu topp sa gannaaw kenn ku si nekk mënal na boppam nga xam ne askan bu nekk sa gannaaw kenn ku si nekk xaaru la amuñ droit nag jéggi la du yoon tam ñu jéggi la nag ñu ñooy toog fii jiite la xeebuñ nag sax gis-gis xeebuñ tamit sa xalaat loo tële waxtaan ko askan bi loo tëlewul waxtaan si askan su ko defee lépp lu ñu dugg ko parce que man dama dugg région de Fatick région quatre régions yi nekk Sénégal nekk top nekk première position te te loolu commune de ci département bi war na ko ndax fii bi muy yeewoo di ay tëye yàlla dafa leen sutura nañ fexe ba li may wax ñu ñu jëfee ko mooy subvention yi na si tëye yi seen bopp lu paase la paase la ndax am na si loo xam ne jot na si paase ñu naan. kon bu doxee ñun la bu toogee ñun la waaw ak li nga xamante ne mooy li nga xam moo ko waroon ñu di ko rectifier maanaam mooy mu leer président bu defoon nangam ji day dina baax nga xam ko yaakaar ko ci eggee woo ko président lu yàq yàq yàq lu yàq rek am xalaat kañ toog fa nga toog. kalaat nga bu ñu ko nafee mu normal nga oo président yaa ngi numéro nga ne ko président bi ñu essayé nangam ak nangam ak noo ko gisee association kat mbooloo koy defar de mbooloo di nga am koo xam ne toog na fii faluñ ko dara mun na xalaat loo xam ne kat koy wax nañ nañ mooy li nga xamante moom moo am solo a waxtaane ñu jàpp ñu bu xam ne bu doxee ñoo ko doxal bu gaaree ñoo ko ba gaaree parce que ñoo bokk bëgg bu ñoo bokk benn métier kon tey suñu saawaay ñun ñooy suñu doolee bopp ku ñu soxla yi tamit dafay seet fa mel ak ni nga àndee ak bañ saa yi ñu suñu ah am na loo xam ne bu ñu ko moyee nag ñëpp soxla te bu ñu soxlaa bi ñun dañ ko am loolu laa tax man su ma jëm loolu laa nay dénkuwaat ñu waxtaan ci ku nekk bàyyi ci xel allahumma salli ala sayyidina Muhammad ok ah, tey tey ñun ci poste bi ñu fal suñu xalaat daf ci doon nekk saa su ne ñu jàpp ni commune bu nekk war nañ fa mën a dem toog ak ña fa nekk ñu waxtaan ak ñoom te li ma lay njëkk a ñaax yow sàmm mooy nanga bàyyi xel association bu nekk foo mu ne dawal sa moto na nga fa dem gis président bi mu dajalal la association bi dëkk bu nekk nga def nga fexe nga def ko noonu yombul bu ko defee li nga ko bëgg di ko am am nañ chambre de métier mais chambre de métier ragal naa ne bu ut dara ci téye yi tey war a jaari ci chambre du département pour ñu <coughs> dëgg loolu tam na ko bàyyi xel ñu ngi waaj sax bi ñu wax ay renouveler ay nangam ak nangam ak nangam na nga bàyyi xel ne fi nga tàmbali tey nii suba commencé nga liggéey loolu na ko sóoraale di ci def sa doole di ci def sa moyen di ci def sa lépp mais fexeel ba bu gaaw a ndax di nga dajee ku mel ni Badou Mbow te léegi mu wax la loolu naqari di ko mun bu baax a baax a baax euh, organisation bi ñu nekk dina fexe ba vraiment tund bi yëpp ku nekk yëg ne vraiment téere ñu ngi ñu ngi am ay bés téere ñu ngi yëngatu ci nangam ak nangam ak nangam ak nangam moo tax bi Aziz di laaj postu sax affaire bi ma xaw a def ree ndax département fu ñun ñi fi jóge woon def formation foog naa yooloo woon ak moom ak keneen ak keneen te li nga liggéey mën a liggéey moom ci loolu kenn xamul nu mu toll loolu tey amal na bu amee poste sax mu doon benn affaire boo xam ne da koy déranger bu bëggee liggéey loolu mun na xaw a jafe ci moom kon moom ñu ngi xaar lu baree baree bari bari ci moom sa diggante ak moom bu ko defee loolu nga gën ci bàyyi xel xam ne ah, mbooloo mi la jiital du dañ fay ëpp dayoo du dañ fa mel na mel noo wala benn affaire ba tax ñu jiital la loolu na ko sóoraale gën a bàyyi xel ne ñu nekk sa gannaaw de leen nemmeel di leen woo di leen lijjanti di xam ci lu ñu nekk nga leen di seet di jëflante ak ñoom te lu xew yow leen koy mën a wax ndax yow yaay personne morale yow yaay personne bi nga xam ne tey am na ci loo xam ne bu egsee ci département bi ñu ne Samba ndax dégg nañ ci ma Samba wala dégguñ ko ci loolu moom na nga ko bàyyi xel gën ko sóoraale gën a bàyyi xel association yi nag teg ah chambre de métier bari na boo yoo xam ne ñu ngi jàngi métier amul ay amul ay carte chambre de métier ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen loolu nan ko gën a bàyyi xel gën ci waxtaan ak sa bureau bi gën ci waxtaan ak sa équipe ah ma wax waaw gën ci waxtaan ak sa équipe gën a def au moins noo mun a def pour affaire bu dox da fexe pour def ko di bàyyi xel ne ñun ñu sa gannaaw du ñu bàyyi benn yoon amul benn yoon bu ñuy bàyyi li ngay wax attaqué buñ attaqué di xam ñun ñoo lay attaqué di defal lii defal lii defal lii ku la ku suñ daj na nga bàyyi xel ne dëkk yëpp mag nañ tey géejaan bi ne boo ko rombee am na courant am na lépp am na lépp jaatu na sàmba léeg-léeg nga xaaral ma dawal suma vélo ñëw ba géejaan laaj ca kii du mu umbanteeg moom ci dara Aziz man ak moom benn jëmm la samedi ak dimanche la mos jaar ci diggante dañuy partage moom baree bare su ma toogee waxtaan ak moom bon donc yàgg na jiite association bon su ma waxtaan ak moom mën na ma gën a orienté gën ma xelal gën ma woon ne ma nii la ak nii la ak nii fu mu toll daal tàllal nañ ñëpp loxo mboolem bu nekk ci département bi ñu fi teew ak ñi fi teewul loxo pour ñu ànd liggéey département ci kanam lii nag mooy suñu bëgg te am naa yaakaar ne war na mën a dem. parce que ñu fi toog ñu ñëpp ay responsable lañ ñu fi toog ñëpp dañoo engagé te ay chef d'entreprise kenn ku si nekk mun nga doxal sa mbir te du am benn problème kon ni ngay gérer sa atelier ba du am benn problème li nga bëggee mu dem bëggoo lu ko yàq boo ko bëggee département bi dana dem te du am benn problème ñu wàññi tuuti nag euh, waxante bu ñaaw ñu wàññi aussi tamit xatante bi ñu wàññi tamit aussi tamit xeebal njàng kenn ku si nekk dox sa morom cër respecté sa borom bu ko defee lépp lu ñu bëgg a def rek dinañ ko def normal te amul benn problème man nag xale bu ndaw la am na ñu fi mag foofu gën ma jàng gën ma xam yoonu association kon nekkul ne dama fee gën moo tax ñu fal ma nekk ma fi dama fay jàng moo tax ñu fal ma nekk ma fi dama fay dàq lijjanti moo tax ñu fal ma dañ am ci man yaakaar rek yaakaar ne bu ma falee dinaa ko mën a doxal yaakaar boobu nag ñu ngi ñaan yàlla yàlla ko yàlla woyofal bañ mën ko doxal ni mu nga xam ne noonu la waree te am naa ci yaakaar ne dana dem parce que ñi ko seq nii ñi ma gis nii ñu topp ah ñëpp am fulla ak fayda te ñëpp engagé wu te gis naa ne yaakaar naa ne ñu ma ko bàyyi surtout ay jéego yu na ay vélo dugg na oto def na ñëw na fas yi lu ne def na rien que ngir téere yëpp booloo suude wu nekk fenn bokk day bokk. tey nag la ko yàlla dogal ñu déggee ko noonu ñu gën a góorgóorlu gën a jàppante sant naa nag gërëm naa maa ngi ñaan ñëpp jàmm yàlla mi am jàmm yàlla ñeen yàlla jàmmal bon donc li nga xamante ni bëgg nañ ko ñu doxal ko ci na nga xam ne noonu la waree asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala